thank you asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyu leen sant leen jaajëfal leen ñoo ngi biir Abass ndaw jamonoy mbas waaye Abass ndaw li nga xam ne mooy wàllum santé dafa sooxe tey li ko sooxe du leen lu dul mooy personnelu santé bi ñoo mer futu grève boo xam ne am na diggante ki nga xam ne mooy directeur Abass Ndao bi ba ñu naan ñu sax am na si ñoo xam ne dañoo dem si yoon directeur bi moo leen porté plainte directeur bi amit am kàddu yoo xam ne moom la ko wax ne ñi nga xam ne ñooy personnel santé bi ñoo ko def dañuy bàyyi wala it ñu bàyyi leen image yi bàyyi leen ak directeur bi bàyyi leen ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum santé fii si Abass ndaw ñu dégg wala it ñu wax ñu dégg nga xam ñu jéem a xam ana lan mooy problème mu Abass Ndao lan moo tax tey personnelu santé bi grève lan moo tax directeur bi yóbbu leen si yoon si image yi di ngeen ko gisal seen bopp. commencé expliquer li am lépp ci début ba ba tey ji le 17 dama jot benn lettre circulaire bu jógee ministère de la santé muy lettre circulaire numéro 298 slash MSAS DGS DEPS en date du juin du 17 lettre bi de rappeler disposition yi ministre de l'intérieur jëloon pour tere bépp rassemblement ci structures yi donc boo gisee la circulaire boobu nga xamante ni donc day tere rassemblement yi moom léegi ci biir hôpitaux yi ni ñuy dajeeg yooyu mu nekk assemblée générale mu nekk ay levée du corps ngénte ñu interdire loolu. ba ma ko jotee le même jour ma génn benn note de service pour internaliser loolu ci hôpital bi mu nekkoon le 17. note bi ma def ko large division donc jox ko ñëpp taf ko fépp ñëpp xam ni léegi c'est interdit ay rassemblement ci hôpital bi loolu c'était le 17 août ci ëllëg sa le 18 août may def réunion de staff donc yenn service service dañuy daje réunion de staff ma waxaat ko fa ma koy wax ki war waral affaire bi ba nga toog waxaat naa ko fa ne jël naa note bi sur la base de la circulaire que j'ai reçue donc nañ sursoir yenn manifestation yi prévoir yëpp fekk moom prévoir woon def benn assemblée générale le euh, moom ñun bëgguma di tudd ay tur nit mais daal fonction bi mu nekkoon am moom moo nekkoon représentant du personnel bi loolu amee mu xar koo toog lu 18 mu toog mu wax ko li mu leen def mu xëy mercredi 19 dëggaate li ma wax li ministère wax ak li ñëpp wax daal di organiser assemblée générale fii ci hôpital bi défiant toute autorité bi loolu amee le mercredi ma ñëw tamit xool ay vóor vers onze heures midi ma gis mu def assemblée générale bu mag la ñuy wax ma daal di ñëw dugg sama bureau unité daal di comme moom du agent wu hôpital bi agent wu ville de Dakar la boo xamante ni ville de Dakar muy employeur am moo ko affecté fii ci hôpital bi ma jël kayit bind maire ville Dakar ne ko kii lii lay def comme man mënu ma koo yor li ma waxee du def delluwaat naa la ko ma delluwaat ko moom agent ville de Dakar maanaam la maire tamit ma di ko sant di ko gërëm parce que elle est très administrative ko. précédemment en service à Abass Ndao et remise à la disposition de la ville de Dakar lépp boobu léegi nag chaque jour moom demul day xëy ci hôpital bi ñeen xaritam yi nekk fii bés bu nekk fii la ñuy toog ak seen i ñu dem fekk oto service bi nga xamante moom laa yor ñu jël ay chaîne chaîne ko pneu yi takk kële pneu yi jël ay gravat def ci. Euh, ci bés boobu moo gisee dama leen gis. ñu taxaw ci sama oto fii ci biir boo tollu fii da nga seen oto bi ñu war ko taxaw foofu boobu jur sax dama mujj obligé ma ne non j'ai pas créé des heures dama wàcc ma jaar ci nii ci ginnaaw dem ñi bi bàyyi fi oto bi li ma xëy soo fekk ñu enchaîné ko def ci léegi boobu mooy première fois boobu mën naa wax sax ni ma dem ma dem police porte plainte ñoom def constat ñu dindi chaîne yi defaat noonu ba bërkaat déewu leen di passé léegi moom dañu koo encore defaat moo wax sama service maintenance mu ñëw dagg ñëwaat ñoom mais benn làqatuñu ah ñoom ñëwaat jëlaat jënd cadenas seewaat ko takk ko loolu moo waral plainte bi ma plainte leen benn bi mooy sama oto bi oto bu service bi ñu vandaliser ko ñaareel bi dañoo toll ci période du mbas période du épidémie kilifa yi tere rassemblement mais pourquoi ñu ressemble moi dama yaakaar bi nga yaakaar ñoom ñoom moom dëkk bi. fi ñu ku nekk ñaxtu moom ku nekk mën ngaa ñaxtu toujours fu la neex waaye am naa leen daal xam naa ko bu ma fa ñëwee ak léegi hôpital bi avancé na bu baax loolu daal wóor na ma ci côté yëpp. ñaxtu nag nit moom toujours bu ko neexee ñaxtu waaye loo ñaxtu ñaxtu ñaxtu ba note de service arrêté ñëw lettre circulaire ñëw ne bu kenn def rassemblement ay la yoon ngeen euh, mbas mi jaru ko c'est-à-dire que ni ñu bëgg a défier autorité bi mooy yoon li ñuy def moo dul yoon directeur bi fi li ñuy def mooy du nangu kilifteef loolu du yoon nit même boo ekk ci revendication def da koy teg ci yoon bu kilifa yi dee bu leen def nañu arrêté nañu ko arrêté loolu mooy dëgg moo yoon mooy dëgg mooy yoon man fii nag dinaa la wax dara balaa maa coupé ñuy arrêté man mosuma nekk problème Abass Ndao je n'ai jamais été un problème Abass Ndao man je suis une solution pour Abass Ndao solution yi ci laa bokk mais dafa am loo xamante ni lu ëpp tuuru am loo xam ne yem bu ministre de l'intérieur jëlee arrêté ministre comme sa san jël lettre circulaire directeur bi nekk ci hôpital bi jël note euh, dafa am lu am donc da leen plainte tey jii convoqué na leen police pour ñu dem wuy ci diggante bi aussi am na ci système de santé bi ñoo xamante ni samay kilifa la ñu woon ñu ma rus nañu tey ma koy sant mu nekk euh, docteur Farba Lamine Sall nit ku am taxawaay daf ma woo ne man naa ñëw fi moo nekkoon directeur cabinet ministère bi aussi nekkoon directeur hôpital te it formé na ma man ma formé tamit CESAC sama sama sama kilifa la daal ci gàttal. mu woo ma ni ma dafa bëgg a gis ma ne ko ba benn problème man sax soo bëggee mën naa déplacé wu ñëw foo nekk mu ne ma non non toogal ma ñëw ma toog mu ñëw mu waxtaan ak man ñaan ma ni ma daal dindi plainte bi. te it man ci adduna bi sama fonctionnement ak sama philosophie moom mooy lépp wóorul jàmm jàmm ko gën loolu mooy ci adduna bi lépp wóorul jàmm rek donc ci kaw loolu dem ànd ak yenn kilifa seen i kaay muy Mballo Dia Thiam. ak Sidé Ndiaye ñoo toog ñaan ma ma dindi plainte bi donc ci laa nekk nii correct na commissaire pour dindi plainte bi bu ko defee bu ñu paree ci loolu ñu toog jéem toog waxtaan parce que de toutes les façons fu mu mënti aussi ci table lay mujj ñëwoon ñu waxtaan jéem a xool lu jubóor bon il faut relativiser médecins yi grèvewuñu de demuñu fenn ñu ngi liggéey du ma mais l'hôpital fonctionne fonctionne l'hôpital en tout cas benn c'est personnel boo xamante ne benn nit ak bu liggéeyul xëy na dina ni loolu gënaluma mais daal nga jàpp ni hôpital bi mu ngi fonctionné boobu léegi man na fukki fan chaque jour na am ñu toog fii waaye daal ci gàttal boobu ba léegi hôpital bi mi ngi dox amuñu benn arrêt ci liggéey bi parce que tamit parce que parce que kilifa yi aussi kilifa hôpital bi ñoom ñi koy tax ñu tax ñi tax ñu wax hôpital ñooñu mën nañu àndal mën ngeen dem nga laaj ngeen dem war nga seen laajeen parce que li ñu def loolu dafa defuwul defuwul kese. jërë ngeen jëf dégg ngeen ki nga xam ne mooy njiitalum hôpital Abass ndaw kaddu yi nga xam ne moom la wax ne mooy lan dañ koo tooñ sama ginnaaw oto bi nga xam ne dañ koo seene tey personnelu santé Abass ndaw liggéey ñu tey ñoom ñëpp police quatrième lañ nekkoon ba ñu plainte soon ñeent waaye dégg ngeen ki nga xam ne mooy directeur bi si boppam nee na ñett ñeent ñooñu ñëpp bàyyi na plainte bi maanaam retiré na ko waaye jamonoy mbas la nekk tey suñu demee ba jamonoy Covid nga xam ne personnel u santé tey ñoom ñuy dem bay grève wala xiiroo ngaayoo di am boobu patients yi ñu bëri ñoo ngi tey fii Abass Ndao ji suñu leen yi faj li ko waral du lenn lu dul mooy médecins yi ñoo grève question bi ñuy laajte nag du leen lu dul est-ce que jamonoy Covid war nañ nekk xiiroo ngaayoo wala it est-ce que personnel u santé bi si boppam ak directeur bi waruñoo ànd booloo ndaxte tey dëgg-dëgg ña ci gën a ñàkk du ñenn ñu dul mooy ñun ñi nga xam ne dañu néew di doole te bëgg faju jërë ngeen jëf